dun sey borom taw feex numéro yi ñi ngi jàll au bas de mun ngeen ko fekk Dakar Kaolack Thiès ak euh, fi nga xamante ne moom moo di euh, Touba numéro yaa ngoog euh, mun ngeen jog ko ak moom ñu wéyal waxtaan bi Serigne Medoune tey ci fànn boobu itam ndax mun nañu wax ne gis nañu jàngor boo xamante ne dafa bëri lool léegi di dal mag ndaw muy hémorroïde ndax loolu mun nañ ko boole ci jàngo yi nga xamante ne day laal euh, appareil digestif. ci la bokk émission bu bëggoon sa dem tableau tuuti. waaw pour wan nit ñi xeetu hémorroïde yi. Uh-huh. ndax hémorroïde dafa nekk loo xamante tam ni nga ko waxee day dal mag di dal ndal ndaw di daw di dal xale. hémorroïde dama balaa maa fàtte ci luñ jëmoon ci hernie hiatale bi. Uh-huh. xam nga lii mooy diaphragme nii la def moom moo protéger. diggante mbàq yi ak butéeli fu ñu nekk ak xëtër yi ak respect xol bi. Mhm. léegi kii jafarang bu nekkee nii lii di purux bi da cee jaar da cee am yoon jàll am lu ko tëj nag fii lu ñuy wax hiatus bu fekkee ne dafa ubbeeku lii génnoon fii day dugg dafay tancu bu ko defee day def nii nii lay def uleeku mu mel ni nii lay mel. ñu ne hernie diaphragmique wala hernie hiatale bu ko defee lu mu lekk rek da koy géexaat mu koy goxi bu lekkee lu méttan da koy gox mu génn tomate bu lekkee lu mel ni tiir day géex tiir yi di génn bu lekkee tiga dégg muy def noonu lii la ñuy wax ci wàllu hémorroïde nag hémorroïde déjà cër la boo xam ne képp kuy dund di doomaadama am nga ko hémorroïde moo nekk fii ci suufu doomu aadama bi xam nga doomaadama aadama lii tiwo la raakool la mooy butit ba ñëw ba ci li nga xam ne mooy colon ba ci anus ba ci rectum bi ba ci anus bi mhm. moom dafay tëju waaye bu tëjoo ba fermé wu suñu borom ni ko bindee day am tuuti espace bu def du tolloog 6 centimètres ba jëm 6 6 millimètres à 6 centimètres mooy des ci loo xam ne du mun fermé tam day am tuuti ubbeeku ci biir te lii bu ubbeekoo tuuti nii nit ki fu mu toog kon fu mu toog ngelawul ci biiram day génn rek du mhm. mën a téye suñu borom def nag ay genre coussinet ay genre wërngël yu mel nii nii lay mel mhm. nga xam ni nii lay def bu ko defee expenteur bi wër ko mu def nii nag nga xam léegi day tëj suuf gi ba nga xam ni ngelaw dootul génn loolu di ko tëj nag moom la ñuy wax hémorroïde ñëpp ko am d'accord hémorroïde yooyu c'est que olof mooy def nit ki turu feebar bi lay jox jàngoro bi mhm. comme nga ni estomac dama am estomac estomac bi ku ne mhm. xam ne ñëpp ko am waaye dala bu wax ni foofu la feebare hémorroïde bii nag moom dafa am ñaari pàcc dafa am li féete ci biti ak li féete ci biir mhm. moo nga di naan hémorroïde externe ak interne ak interne suuf bii nag hémorroïde mooy tax ngelaw lu du jàll bu fekkee nit ki dafa am nag inflammation wala infection moo dañu war ci yoon dañu war a wax inflammation wala ñu ne infection des hémorroïdes loolu la ñu war a wax mais feebaru hémorroïde amul bu amee inflammation maanaam hémorroïde ci boppam ay genre veine la dafa sol deret manqu di metti mu féetewoo ci biir hémorroïde wala ci biti bi maanaam mën na mel nii hémorroïde interne nii lay mel day mel ni ay genre tuñ ñu def nii mhm. nii lay mel extincteur bi ferme ko ni mu def nii ñu ne kii dafa am hémorroïde nag grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 moo tax ngay dégg yooyu. bu dee ma xam ne yëpp la laal di ubbi las ñu ne kii grade 4 la toll. mais am tam hémorroïde externe kooku moom comme suuf bu nekkee nii moom nag dafa nii la def bu ko defee moom kii dañ naan yi dem dafa dafa génn. Mhm. kii externe la am. lii mooy différence bii interne la mhm. bii externe la maanaam bii li néewi sol deret manko dafa féete ci biti bii dafa féete ci biir mhm. bu ci nekk ci ñoom naa nag dana metti mën naa nàcc mais mu lu bëri bu nàccee day fekk nit ki bii dem àll cabine yi xaw a wow mu xaw ko dagg deret génn mhm. muy metti waaye deret bi muy génn lu ci ëpp du xonk cuuy day xonk xonk bu xaw ñuul nii tuuti du mel ni xonk bii nga xam ni kon veine parce deret bi veines yi ñoo yor deret yu ñuul yi. artères ñoo yor deret yu xonq yi. mais fi Sénégal dañuy def nag ku am feebar sa suuf fii ci rectum bi ak anus bi rek ñu ne dafa am hémorroïde fekk nag lu ci ëpp sax du hémorroïde hémorroïde am na mais ñi mu daal bariwul ñu bëri dañuy jaawale ak yeneen feebar xoolal fii rectum bii bu fekkee fii dafa am lu ñu lu mel ni tumeur wala mu am lu mel ni ulcère fii nit ki bu demee cabinet cabinet yi wow bu xoosee tumeur wala mu xoos ulcération deret day génn day metti mm-hmm. mm-hmm. day saf wala nit ki di dem cabinet mu wow mu forcé mu dagg rectum bi def lu ñuy wax fissure maanaam déchirure xotti ko deret day génn day saf day metti kon nekkul ni deret génn na rek wala metti nag hémorroïde la mën na nekk tamit mu am cancer du rectum wala cancer ci li nga xam ni mooy colon bi boobaa nit ki buy dem toilette day gis deret bu xonk cuy mais boobaa moom du cëpp kooku du mettile mm-hmm. wala moo tax képp koo xam da nga gis ni rek soo demee tey toilette dangay ngay seere semaine bi beneen semaine bi sa biir daw nga koy alterner njortal ni yenn saa yi nga dem toilette mu génn deret njortal ni am yaa ngi commencé am cancer ci ci butitu yi nga xam ne mooy moom moom nga wala nga soo xam day dem cabinet cabinet bi ñuul kukk boobu day fekk lu ci bëri fii moo am nàcc ci oesophage bi ci maanaam ci wala ci mbàq meeg yooyu moo nàcc dem dem migré ci li nga xam ne mooy euh, butit bi mu assimiler ko mu ñuul mu def lu ñuy wax melanaan mhm. moo tax ñooñu tam njort la boo xam nit ku bëgg gisee tam mu xool boppam wala ngay lekk li ngay lekk fii di takk li ngay lekk di takk lu ñu wax dysphagie mhm. kooku tam njort la yoo xam ne mën na nekk problème cancer ci wàllu œsophagique yu mel noonu mu yooyu bu ko nit ki gisee moom na bàyyi xel ne ah lii kat mën na nekk lu doy maanaam deret fu mu génnee ci yow rek njortal ni mën a nekk hémorroïde garaawul waaye mën na nekk tam lu xam ne dafa yéeme dafa dafa mhm. na seen suuf foo ko fekk dafay tooy da génne lu mel ni lu niin lu mel ni lu sëcc. Mhm. am foo ko dafa am lu fay seet. loolu la wax fistule am na yoo xam ne seen suuf day xasan ñu koy wokk ba muy kii prurit anal boobu mën na ko def rectocolite yi maanaam li nga xam ne daal ci tënk nekk na ci suuf ci rectum bi yooyu mën a dal nit tey naaj ci bari na moo tax nit ki bu nee suufam day naaj dafa am li nga ko war a njëkk laaj mooy nan lay naajte. Mhm. maanaam deret bi nu mu mel dafa xonq. wala dafa ñuul. parce que deret bu xonq ak bu ñuul information la. wala dafay saf dafay jam dafay tàng wala dafay cuuj mu wax la da ngaa commencé dem toilette deret bi doog a génn wala bi nga paree la deret bi génn wala deret dafa taq ci toilette rek benn bokku ceeg moromam. kon yooyu yëpp information moo tax nga mën a xam nag ndegem kii dafa am hémorroïde wala dafa am fissure anale wala dafa am fistule anale wala dafa am rétention anale wala dafa am thrombose anale wala dafa lu ñuy am na ñuy wax hématome nga xam ni fii suuf gi fii day jékki rek am lumb deret bu fa tëju day metti am na ñoo xam ne dañu am benn genre picc bu ne seen suuf fii ci wet bi day jekki-jekki di xasan di ñammi ñammi mel ni taab mhm. jekki-jekki toj génn lu mel ni dëtt tuuti ak tuuti deret bàyyi muuruwaat nga dem ba yàgg foon sa mu ngi wér mu jekki-jekki solaat génnaat yooyu itam mën a nekk cancer bu yàggee moo tax yooyu yëpp itam bu ko nit gisee cher moom rek na si jóg mais daal li nga xam moom la gën ni ñu jàpp moom la muy hémorroïde yi moom hémorroïde daal mooy yi nga xam ne ñooy tëj suufu doomu aadama bi ba 6 centimètres yëpp air bañ ci génn léegi interne bi am na externe bi am na ak yenn yi nga xam ne wax nañu ko fi yëpp nga xam mën mais euh, euh, si hémorroïde bi la ñuy appesantir tuuti inflammation yooyu laal wàllu hémorroïde bi interne bi comme externe bi mhm. ndax ñu bëri dañuy jànkonteeg moom ñu bëri itam naan mën nañ koo fajam ak déet mhm. ndax doon na loo xamante ne lu ñuy faj muy wér la mhm. wala loo xamante ne tan rek lañ ci jëlee hémorroïde dañ koy faj ba mu wér xam nga lu gën a sonal hémorroïde xam nga cabinet ay microbe la nit ki bu fekk imagine mu am loo xam dafa dagg suufam tuuti cabinet yi jaafam microbe yi dafay infecté suuf tam dafa sensible metti bi ni ko yëg nit ki di yëgee dafay metti mhm. léegi nag boo koy faj da ngay fexe d'abord li nga xam ne mooy infection nga dindi ko mais deret bi nga xam dafay taaju fii da nga ko jox ay vasodilateur yoo xam day tax kii dilaté wu bi delluwaat bu ko defee sang bi dootu fi takk parce que li koy métti rek mooy sang bi fi dajaloo sang bi dootu fi takk ci tubaab nag ñoom dañ koy opérer dañuy dindi hémorroïde bi. Mhm. dañ koy dindi am na ñu koy dindi am teppi ni boole ñaar yi. mais amul est-ce que bu dee benn lañ dindi c'est pas grave mais bu ñaar jëm ñett moom nit ki lañ doon bañ foofu nga am foo toog ngelaw li génn moom ñu fayee nit ki bu en général dootuñu ko dinditi mais nit ki mën a dindi benn hémorroïde ba pare beneen hémorroïde ñaar feebar moo tax dindi ko bi du solution faj ko mu wér la mais nag nit ki am na fu mu toll nag ci coono ak mettit même ci fissure anale sax nit ki day am fissure anale mën nga ko faj ba mu wér mais nit am na fu toll ci coono ak mettit nga dem voie chirurgicale moom mooy tane mais garab kese mën na ko faj ba mu wér mooy nga dindi infection bi sang bi di taaju nga dindi ko ak ay vasodilateur jox ko garab yoo xam day tax du am mettit surtout bu ko defee rek circulation sanguine bi normal amatul mettit cicatrisation bi dañ nit ki dafay wér mhm. hémorroïde bokk na ci yi gën a yomba faj mais seulement euh, euh, pour nga faj ko tamit moom li signes yi nga xam ni nit ki yëg na nga ko war jëndi mais nag cause bi tax nit ki am hémorroïde moo xam dafay seere mu yóbbu da yóbbu ko mu dem toilette di naanu lu yàgg ba rectum bi di génn anus bi loolu la wala lan bu dee dafay seere nga dindi wala seere bi en même temps fexe ba muy bañ di constipé waaye itam bu biiram di daw tamit maanaam bul transformé seere bi en jaare bu met déedéet dafa dem toilette sel yi mel ni ñu war a mel noo xam ne du waw du tooy mu mën a génn facilement ci rectum bi nga xam dana ko dimbali moom mu génn du am benn jafe-jafe da ngay kon transit bi ba pare régler nag problème bi nga xam ne moom mooy problème bu temporel bi gis nga nga lijjanti ko donc dafa nekk liggéey boo xam ne rek euh, dafa parallèle c'est en deux temps li ko indi da nga koy rectifier mhm. la mu jot a yàq nag nga nga defar ko bu ko defee nit daal di am jàmm daal di wér ci tënk daal loolu mooy lu yomb la waaye bu ko jaawee rek ak fissure anale yi bu ñu ko jaawee rek bu ñu ko jàmbalee ak thrombose anal yi bu ko jaawalee ak hématome yi bu ñu ko jaawalee yu bëri yu bëri yoo xam ni mhm. ba ci cancer du rectum yi ba ci tumeur yi anal yi ulcère anal yi bu ñu ko jaawalee ba bu ñu gisee nit ki mu nàcc rek ñu ne automatiquement dafa am hémorroïde fekk amul hémorroïde maanaam hémorroïde am yi nekkul hémorroïde en tant que tel mais beneen feebar moo ko dal beneen feebar la am mhm. kon nañuy sóor loolu moo tax ci faj diagnostic bi dafa am solo laaj nit ki mu wax la ni mu ko yëgee ni mu ko gisee ba ci deret bi nu mu mel mu wax la ko nga mën xam exactement kii kon lii mooy jafe-jafeem nga dindi ko li may faral wax rek pour combattre un mal mm-hmm. il faut le connaître mm-hmm. sinon doo ci mën a dem affaire nekk looy làmbatu war nga déglu nit ki gëstu ko ba xam ni lii la nga agir foofu bu ko defee mm-hmm. ci kàttanu yàlla yàlla mi am wér day wéral loolu ci kàttanu yàlla euh, ñuy wax ba léegi